pense que le problème euh, pour les prisons c'est peut un problème de volonté politique quoi euh, on est au Sénégal où euh, dañuy wax ni kou tabax prison yaa ci njëkk <laughs> loolu c'est la sagesse populaire qui dit ça bon on ne sait pas d'où ça vient <laughs> mais loolu la wax ce qui fait que pour que état bi tabax ay prison c'est compliqué toutes les prisons qu'on a au Sénégal ben c'est la plupart c'est de vieilles euh, mm-hmm. c'est de vieux c'est de vieux bâtiments mm-hmm. Rebeuss ça date de Euh, les autres aussi c'est pareil c'est temps colonisation lañ ko tabaxoon donc les gens ils font pas l'effort de construire des prisons il font pas l'effort de les moderniser et ça aussi ça c'est vraiment un euh, c'est c'est le minimum en fait. Mm-hmm. booy tëj ay nit aussi il faut que tu t'assures que voilà ils sont dans des conditions humaines parce que yenn conditions yi ñu am ci prison yi ay affaire de paquetage ça c'est pas c'est pas humain en fait les gens sont rangés comme des bêtes quoi c'est ça le mot je m'excuse du terme mais c'est comme ça c'est le c'est comme ça le mot nit ñi dañuy tëdd comme ay malades. et ça c'est pas respecter wul dignité nit ki mhm. c'est ça le plus important il faut respecter la dignité des gens et surtout que prison bañ a nekk juste lieu bu ñuy denc ay nit nañ fa def ay euh, nañ leen jox ay occupation pendant vingt quatre heures nga nekk ci biir cellule defoo dara mhm. c'est pas productif en fait mhm. ku nekk prison war nga mën a liggéeyal askan bi war nga mën a def foofu dañ leen di former waaw am na ñuy former mais il faut ñu yaatal ko aussi okay. je j'ai vu une euh, expérience euh, assez intéressante à Louga où ils ont des champs mais ça c'est bien il faut mhm. ñu gën ko multiplier ce genre de chose comme ça prisonnier bi peut-être dina am moyen de temps aussi parce que comme on disait le risque en prison c'est de se faire influencer aussi par ña nga xam ni ñoo la gën a euh, voilà da yenn délinquants yu mag yi ils vont chercher aussi des petits ya nga xam ne dañ dinañ leen dugal ci affaire mm-hmm. donc le fait de les occuper aussi ça peut éviter ce genre de choses donc ya vraiment de choses à faire peut-être que réflexion bi ñu ngi ci mais euh, pour le moment gisaguñu résultat y a que la prison de Sébikotane qui est moom rek moo fi bees ci ci ci mm-hmm. dëkk bi mm-hmm. donc voilà quoi.